la. nga ne ko sama poudre bu saf. sama poudre bu saf. jéeg ko dékku noo la ca mbaacu tiktok ëpp na fii wàcc na depuis. boobu xam nga lu hmm? jigéen lu mu soxla. jigéen lu mu soxla góor gu ko faale. Ah, waaw giriyanke ba boor. boor boobu xam nga ni mbëggeel yaayoo. waaw <laughs> loolu dafa fees. sopp na loolu.